salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar kulli saarin wa fii ñu ne waaye loolu yëpp nag bu amee dina am ñeenti téeméeri nit ak ñaari nit yoo xam ne ñoom ci wàllu sensibilisation la ñuy liggéey daanaka tas ci biir dëkk bi di waxtaan ak ñoom ci cet geek taxawaay geeg ni ñu war a nekkee waaye ñu ne it nag bu ñu paree dinañu indi téeméeri nit ak fukki nit yoo xam ne service d'hygiène la ñuy nekk ndax jàpp nañ ne bis yi su amee war nañoo saytu ndox mi war nañoo saytu kamiyon yi fiy ñëw di indi ndox waaye camion vidange itam war nañ ko saytu. mu ne. ah timis jege na de waaw kon dégg ngeen sëñ bi li mu wax timis gi dafa xaw a jege waaye daal sëñ bi da ngay jàpp ne nii ñu ko defee noonu kenn ku nekk ci ñun xam na ni prévoir nañu prévoir nañu wàllu garab jënd nañ ci juróom-benn fukki million ak ñaari million beneen bi topp it nag lu bees ci hôpitalu Cheikh Ahmadul Khadim bi mooy dafa am appareil bu bees boo xam ne léegi ci wàllu xol lay liggéey ndax jaama jàpp ne am na feebaru xol yoo xam ne su ma saan jot nit soo ko yóbboo France wala nga yóbbu Amérique mbaa foo ko mën a yóbbu di nga fay fukki million fukki million ñaar baa ñett tey jii loolu am na Touba te loolu yëpp président de la République Macky Sall moo ko def dénk ko soxna si toog ñu dénk ko Moustapha Sourang mii toog nga xam ne doom la ci kër kër gi beneen bi topp nag mooy kenn ku nekk xam na ni it service d'hygiène liggéey bu am solo lay def day dugg ci kër yi di dugg ci ndox mi mais di seetit nag lan la ñuy jaay si ci dëkk bi ndax dañuy jàpp ne nit ñi dañuy seet ne nit ñi dañuy bari biir kenn ku nekk indi sa njaay mu yàqu mbaa jaay moo xam ne kenn waratu koo lekk nga ne xaaral ma dugal ko ci biir nit ñi nga mën koo jàllale. service d'hygiène nag léegi taabal ju mu romb dinañ xool lañ fay jaay xool at ya xool bés ya seet ndegam warees na koo lekk mbaa war koo warañu ko lekk. ndox yi tamit camion bu fi dugg indi ndox service d'hygiène dina xam dina ci dugal loxoom xam ndox mi ndax mënees na koo naan wala déet. loolu daal mooy sëriñ bi li nga xamante ne bii ci gàttal mooy li nga xam ne moom la ñu indi soxna si nag ne. mi ngi doon waxtaan rek démb xaw ma barki démb ak docteur Senghor bu Louga ne ko sëñ Bass dafa am dëkk boo xam ne dafa nekk ca Cilla Cilleel wala Cilla. Thiel Thiel Thiel nag foofa nee na dafa la fa bëgg a defal poste de santé boo xamante ne bii wax na directeur régional de la santé docteur Senghor ne ko na lijjanti lépp jox na ko kayit yooyu yëpp ba pare rek na ko su màggal gi jeexee dinañu seet lépp lu ca war a dem. ma yabal Amath Diouf ak ñi nga xam ne ñoo war a tabax loolu ñu xool na ñuy def ba nga am ko fa Mbàkke loolu daal Mbàkke mooy li nga xam ne moom lañ la doon tënkal rek ndax timis gee dugg te bënuñoo sori waaye sax loolu ëpp na loolu waaye lépp wax nañ ko ku ku tedd ki te xam nañ ne boo demee dina la wax lépp Mbàkke ba sa buri ne mi ngi nuyu ministre de la santé docteur Marie Xemes ak mbooleem délégation bi nga àndal bépp nee jëm ci wàllu wér yaram nee yeesalaat mbirum sëriñ bi nuyooy sëriñ bi ci taxawaay yi nga xam ni nee da a am yéene def ko ci màggal gi ci wàllu wér yaram nee muy loo xam kat sëñ bi nee dara war koo jiitu ci liggéey bi nee wér gi moom moog doomu aadama ñu ànd wéradi doomu aadama ñu ànd kon dégg na engagement yi nga xam ni am ngeen yéene bëgg koo def ci màggal gi mu ñaan nag ci barkeb Sëriñ Tuuba sunu boroom mottali yéene ji ba ngeen def ko ni ngeen ko war a defee ne mi sëriñ bi ne mi ngi leen di sant bu baax ne yow ministre Marie Khemesse sëriñ bi ne mi ngi lay sant bu baax ci seenub taxawaay ci liggéey bi ci màggal gi di ko dégtal ak ci màggal gi ak ci dëkk bi di la dénkaatit ñaari hôpital yi muy hôpital Cheikhul Khadim nga xam ni président Macky Sall moo ko fi def ne président Macky Sall def ci xaalis bu bëree bari mu teg ko ci loxol docteur Sourang nee docteur Sourang di ko taxaw taxawaay bu rafet nee ba mu yegg foo xam ne sax kenn séntu ko woon kon ñu ngi lay gën a dénkaat docteur Sourang ak hôpital bi nee a ah, madame la ministre bu ngeen leen gën a jàppale rek dana gën a yomb ci ñoom ndax day hôpital bu mag boo xam ni. ne li ko war a téye dafa diis kon buñ ci defee nag xaalis bu bëree bari te lam war a àndal àndu ca ne bu boobaa jafe ci nit te loolu mooy tax kenn doot fi jógee di faju feneen ndax matériel yi ñu fi def boo demoon ba bitim réew itam doo fa gis yu kopp te loolu taxawaay la nee mat lëbal foofu nit naka noonu ak centre de santé bi hôpital Ndamatou kon ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la yóbbante nuyoo ku cant ak ngërëm ci président la république ci jëf jooju nga xam ni président Macky Sall jëfal na ko Serigne Touba defal ko dëkk bi muy jëf joo xam ni kenn du ko fàtte ba faw yow it nag madame la ministre ñu di ci raxaw rafetlu ndax booba nekk goo ministre waaye sa taxawaay na ñëpp ràññee la kon ñu ngi lay sant bu baax ne Abdoulahad kat monsieur le maire ubbi na fi ñaari poste de santé ren juróom juróom loolu lépp nag ngir gàttandoo ko bis bi leen ko yéen ndax Touba moo rëy noonu ndax population bi waa Touba ci kanam itam tabaxoon nañu ñaar ñoo xam ne jébbal nañ leen ko ngir bëgg yéen ngeen taxawu ko dugal ko ci biir district santé bi district santé bi kon ñu ngi lay sant bu baax. di la nuyu bu baax di nuyu gouverneur ak préfet ak su préfet ak mboolem ñi nga àndal ñëpp jërëjëf. mais l'hôpital bu rëy bi euh, Cheikhul Khadim Cheikhul mais bi nga xam ne président de la république moo ko inauguré ubbi ko. ànd ak xalif bi. ne faatu mbay mi nekk directeur des établissements de santé. am na leneen lu ñu yokk. ci subvention bi ni ko waxee nee na yokk nañ ko ren ne Matlaboul Fawzeyni ne téeméeri lal ak fanweer la woon nee ñu tabax fa R plus 5 fii ak mois d' octobre ba décembre dinañ ko ñëw ubbi yokk yokk ci yeneen téeméeri lal ak ñaar yoo xam ne dina wuyoo hôpital niveau 3 ndaamaatu boo gisee jaaruñu fa tey. ci solidarité gouvernementale. ci solidarité ministre bi yor ndox mi. ak inondation yi. commencé sa fa liggéey. ba taataay yi. mu jeexul tàkkit ne mi ngi wàññeeku. te bi ñuy lim ambulance yi. bokk nañ ci li nga xam ne SMUR. ambulance yu mag yi xam. ñoom docteur Ndeye Maguette. ñoom day docteur Ndeye ñuy référé. fa la ñuy référé nag. ne dinañ ko indiwaale. ni mu taxawee. nee ni mu taxawee. ba nga xamante ba nga xamante ni. président de la république. am fu am am lu ñu wax ñu taxawu ko. lu am solo. loolu itam. nee ñu ngi ciy dox. te incha allah ñu ngi ciy wax. ñuy dalal sa xel. Mbàkke ñu ngi lay sant di la gërëm. barab bi ngeen xamee moon si Touba ba tax dootu leen demati feneen di jéggaan leneen agsi na fii si dëkk bu sell bi showroom Diaw ko si Touba 28 ak le gérant Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou Cheibou bi moo sagal doomu dara bis ni ki tey jàppaleen kenn dematul feneen di wuti leneen ndaxte nag ni ko Serigne Touba waxee woon si Matlabul Fawzayni lépp lu gën léppay ak si Touba Diaw ko ma nga ca yoon wa mbokki Sénégal mbokki Touba lépp lu ajo si wàllu lumière électricité meuble pour seen décoration métallique lépp lu jëm si wàllu bois jaaxle jeex na da ngeen bëggoon ay enseigne ngir taaral seen barabu liggéeyukaay mu doon totem branding habillage façade lettrage enseigne lumineuse yu méngoo ak jamono Jaw fa muy tibbee foofee la ñi gën a xam ñi gën a ràññee ñi gën a bëgg lu baax dëkk yi gën a mag si àdduna wërngal këpp di jëlee kon daal mbokk yi ma ne agsi ngeen fii si Touba 28 am nañu ay lumière sur toutes les formes ay nouveautés tendance yi nga xamante ni moom la ñuy appliqué partout si a Touba di nga fekk une large gamme de luminaires et de lampes waaye nag décoration liñ ci mën mën yi kenn mënu ko fii si mim réew ay décoration yu méngoog jamono décoration intérieure ngeen am salle wala salon à manger ngeen am jàkka jumaa ngeen bëgg ay lustre wala lépp luy xeet décoration pour barab yooyu bu ngeen amee barabu xasida ñëw leen jaw déco décoration chambre espace bu mën a doon lépp lu jëm si wàllu électricité am na nañu les grandes marques du monde le grand Ingelec am nañu ay contact lépp loo xamante ni daal moom ngeen itteewu sunu ay découpe laser jaw déco moo leen yembal machine yuy tax ngeen mën a réaliser li ngeen bëgg jaratul dem faneen sunu ay machine moo leen génnal ay design yu mucc ay pour seen décoration bu mu mën doon rampe escalier wala lépp luy travaux sunuy enseignes sont de qualité garantie pour une durée de un an si wàllub menuiserie jàppaleen mbokk bu ngeen bëggee dressing cuisine américaine comptoir ngeen bëgg ay logo yu mucc ayib mën ngeen woti lépp luy seen travaux ànd ak personnel bu disponible accueillant xam wàllu wi ak gérant bi nga xamante ni lépp lu yokk Touba moo ko tax a jóg moom Pape Abdoulaye Diaw taalibe Serigne Fallou Cheibou mooy ñaanal ku tedd Bachir xalif général des Mourides yàgg fi lool te ànd ak wér leen ñaanal màggalub jàmm fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar